أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam mbokk yi ba tey ñu ngi ci istuwaaru yonent yàlla yuusuf alayhi salaatu wassalaam ñu ngi tolloo nag yéen ci tomb boo xam ne ñu ngi koy tuddee talaaqat al quluub marratan uxra ay xol yu daje beneen yoon ay jëmm yu jàkkaarloo ay doomu aadama yu daje ay mbokk yu daje mu ne mu neex na sunu borom subhanahu wa taala ay mbokk yusuf daal di dellusiwaat ci yusuf alayhi salaam jóge seen dëkk ñëw misra te mooy Égypte troisième fois muy ñetteel bi yoon waaye jamono bi ñuy dellusiwaat tey dañoo dellusi dellusiwaat goo xam ne dañoo loru dañoo sonn dañoo xiif dañoo mar seen yóbbal dafa jeex lépp lu ñu dencoon pour préparer ko ci année yi nga xam ne année maral la woon ak bekkoor mbokk yi loolu jeex na waaye dañoo dellusiwaat ak problème dañoo perte ñetti mbokk comme ñoom ci seen gis-gis Yusuf dafa dee tey Binyamin jàpp nañ ko raw bil nee na dootul ñibbi lu dul ñu bàyyi Binyamin kon ci ay jafe-jafe yu métti ci la kër gi nekk këru yonent yàlla bi tudd Yaqub alayhi salaam bi ñuy dellusiwaat encore comme ci jafe-jafe la ñu nekk xaalis bi ñu indi pour ñu war leen a jaayaat dund xaalis bi encore matul dafa manqué kon daal kër gi mbokk yi dañoo tollu diggante ci tar-tar ñu ñëw ci kanamu buur bi tudd Yuusuf ñu commencé di jàmbat ci kanamam ci xiif gu ñu xiif sonn gu ñu sonn mar gu ñu mar tumaranke gu ñu nekkee li tax nag ñu wone lii lépp ci kanamam faiblesse bi mooy ngir mu baal leen libérer seen frère bi borom bi subhanahu wa taala di ñu nettali ci saadu yusuf aya 88 mu ne fa lamma daxalu alayhi qaalu yaa ayyuha al aziizu massana wa ahlana dur ee yow buur ñoo ngi lay yëgal ne day ñun fi ñu toll nii lor dugg na sunu kër sonn nanu ngalawaay yombalal ñu asaabana wa ahluna ashidda li nu dal ñun ak sunu waa famille sunu dëkk sunu kër mooy tar-tar ci mar ak xiif ak coono indi nañ sax alal waaye li ñu indi du dara wa jina bi bidaatin musjaatin ñun de li ñu indi du tus ngalawaay yërëm nu fa aw filanal kay la matalal nu natt bi bul xool li nu indi wa tasaddaq alayna sarax nu dimbali nu ndax ñun gëm na ne inna allaha yajzi almutasaddiqin yàlla dina fay képp kuy saraxe ndeysaan xam nga lii su ay étranger ñëwee ci sa kanam wax la ko yow nga nekk buur te yow nga xam ñoom ñooy ñan nga xam ñii loo bokk ak ñoom nga xam ne dëgg-dëgg ñoom niñ ko waxee noonu la amee boo leen xamul woon sax da nga leen di yërëm rawatina boo bokkee ak ñoom ñenn ñi nga bokk ak ñoom ndey ak baay ñenn ñi nga bokk ak ñoom baay mu leer la ne ne ñii li ñuy wax sa papa lañ bàyyi ginnaaw ak say tànt ñuy tumaranke ak say jarbaat ak ak ak ak nooy def wax nañ ci moom ci kanamam wax kàddu yoo xam ne bi mu ko déggee moom Yuusuf am na lu mu yëg ci yaramam loolu moo tax boroom xam-xam bi ne waxaana waqtul mufajaatul kubra comme loolu am na waxtaan naag wax na wax nañoo moom wax bu mu demi nii léegi nag kon loolu tubaab bi naan c'est le de lan de la vérité kon nag léegi dëgg jot na foo ñu génn ko dëgg jot na wa indama yablugu al amr ila hada al xadd bi mbir mi demee ba toll fii min al istixraaxu mi ci yërmande gu ñu bëgg yusuf yërëm leen wa diiq wal inkisaar ak xat-xat bu ñu nekk ak toroxlu gu ñu toroxlu ndeysaan yusuf mënutul résister kàddu yi bi mu jàngatee mbir mi yëpp ba fu muy teeree mu xalaataat fu mbokkam yi jaar ak moom mu daal leen di laaj ba tey ci saar bi borom bi din ko nettali aaya 89 qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi is antum jahiluun mu ne leen ndax yéen xam ngeen li ngeen def ci yusuf ak rakkam yusuf ak binyamin yéen xam ngeen li ngeen def ci ñoom waaye yéen jamono bi ngeen koy def seen problème mooy wa antum jahiluun yéen da ngeen réer moo tax lu bon ku koy def rek da nga réer lu bon ku koy def ku ne ku réer nga moo tax yàlla bi muy wax yonent bi mu woo mu feeñal woote lislaam bi dafa ne ko li ngay nëbb feeñal ko fasdaq bima tu'mar wa arid anil jahilin feeñalal li ngay nëbb ñu réer ñi bu leen topp yonent yàlla Muusa bi waa banu Israil demee ci moom di ko laaj mbirum nag bi mu naan leen nag bi nii la mel dem leen ngeen rey ñuy laaj di laaj di laaj di laaj di laaj bokk na ci Muusa lu mu wax yàlla a'udhu billahi an akuna min aljahilin yàlla maa ngi muslu ci yow balaa may bokk ci ñu réer ñi yow yàlla yàlla nga musal ci ñu réer ñi kon réer baaxul moo tax mu ne leen hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi is antum jahiluun ndax xam ngeen lu leen def ci yusuf ak frère am te jamono boobu yéen dégg na réer bi yusuf waxee lool ñoom frère yooyu ñaata lañ ah léegi yusuf ak rakkam bokkatuñu kon ñaata lañ fukk lañ waaye nekkatul sax yusuf bokkatul rakkam bokkatul waaye yusuf bokkatul rakkam bokkatul magam bokkatul ñaata lañ mu ne leen waranna fi aadanihim sawtun laallahum yazkaruuna shay'an min nibratihi bi waxee loolu rek dafa mel ne benn dënu moo xaacu ci seeni nopp benn baat pour walla nga ni benn làmp bu ñu taal ci seen kanam pour mu leeralal leen seen passé li ñu passé ci ginnaaw wax ji leen Yuusuf wax ne xam ngeen lu ngeen def Yuusuf ak frère am wax ji dafa mel ne benn bunt bu ñu leen ubbil ci seen ginnaaw au lieu ñu ubbi ko seen kanam mais seen ginnaaw lañ ko ubbi pour ñu gestu xool liñ def seen ginnaaw yépp jamono ju paase rek ci saase rek bi ñu xalaatee li paase lépp mu nekk seen kanam qaalu ñu ne ko a innaka la anta yusuf mbaadu yaay yusuf dégg nga de mbaadu yow ndeysaan a innaka la anta ndeysaan fal aan yëg nañ tudriku qulubuhum wa jawaarihum seeni xol yëg na seeni cër yëg seeni nopp ubbeeku màggaayu ki taxaw seen kanam xale bu ndaw bii parce que xale la woon bi ñu koy yóbbu mu ngi toll ci ay huit ans di ko sànni ci àll bi ci saase rek qaala yusuf qaala ana yusuf yusuf ne man la kay wa haza axi kii taxaw sama loxo ndeyjoor mooy sama frère Binyamin ñun nag qad manna allahu alayna yàlla moonu defal xéewal ndeysaan innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra almuxsin allahu akbar mu ne yéen samay mbokk maa ngi leen di yëgal ne képp ku ragal yàlla te muñ képp ku ragal yàlla te muñ yàlla moom du sànq du neenal jëfi aji rafetal képp ku def lu baax yàlla du ko sànq gis ngeen wax ji du Yuusuf rek moo ko moom de ñun ñii sax moom nañ ko Yuusuf mu noonu la leen wax rek ne man la maa Yuusuf kii sama frère la wax ji jeex waaye xool dafa leen ne innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudi ajra almuhsinin maa ngi leen di yëgal ni képp ku ragal yàlla muñ soo ragalee yàlla muñoo say mbir du sotti soo muñee ragaloo yàlla say mbir du sotti kon foog nga boole ñaari mbir ginnaaw ba nga ragalee yàlla ba pare foog nga làmboo mbalaan muñ naan muñ ñun nag loolu mooy suñu problème suñu ragal yàlla bariwul ba pare dunu muñ kon suñu mbir du sotti xool Yuusuf lan moo leen di won ci aaya bi ne ci taxawaay bii nu toll ne Yuusuf ku muñ la lu leen koy won kuy tontu kan moo ñuy tontu ne Yuusuf dafa muñ kuy tontu kenn bismillah waaw waaw waaw waaw waaw loolu la xoolal Yusuf jafe-jafe yi mu jaar yëpp ba mu dem ba xam ne ñii ñoo ko defoon loolu te tëbul premier jour rek toj ay pes toj ay nopp dafa xoolal di leen teral di leen jox ñuy lekk dugal leen ci biir pale bi ñuy sangu di solu mu leen di delloo xaalis bu ñu indi woon di leen jox dund te fayuñu te xoolal lu bon luñ ko def xoolal ni mu amee patience ni mu muñee faalewul loolu ñu ko doon def bu doon fii kenn ci ñun la ay nit yi la bëggoon jàpp dépp nga nekk xale bëgg laa rey nga màgg dajeeg ñoom da ngay ñëw rek commencé toj ay nopp ñu naan waa kii kan la nga naan leen da ngeen ma fàtte nga commencé fayu mais xoolal dama woon la jullit du fayu moo tax Yusuf dafa muñ moo tax mu ne leen képp ku ragal yàlla muñ ne yëg ne wax ji ñun fan lañ ci bokkee mooy innahu man yattaqi wa yasbir képp kon ñun dugg nañ képp ku ragal yàlla muñ foofu nag mooy wax ci est-ce que du lu yomb de xoole Yusuf li ñu ko def lépp mbokk yi est-ce que loolu dëgg-dëgg nitu ordinaire mën na koo muñ mën na ko dégg ay alxuraan damay wax ne chaque jour li tax ñun duñ ci jëriñu mooy bu ñuy wax ñu ne kii yu bokk na ci li tardeel Sénégal mooy diw kenn mënul mel ni moom da ngay dégg Yusuf mii léegi nit dégg ko ba pare xoolal ah kii kenn mënul mel ni moom ah léegi yow est-ce que doo def effort wala ñu wax benn sëriñ bu baax nga ne non kenn mënul mel ni moom dañuy sonn rek ah ñoom ñu ñëw góor-góorlu ne dañuy dabi saxaaba yi ba am li ñu am donte ne yegguñu 100 pour cent mais egg nañ am nañ tuuti kon ñun lu tax duñ def effort pour jaar yoon woowu toog benn place rek pourtant bu nit jaaroon benn yoon am xaalis nga ñëw laaj waaye noo def ba am xaalis mu ne la damaa jaar nii jaar nii jaar nii def lii def lii boo jógee yow nooy def foofu ngay jaar wala doo fa jaar waaw kon nit bu jaaree fenn pour baax ma ne képp ku bëgg baax jaaral ci yoon woowu gis nga yonent yàlla muhammad bi yàlla nammee mu baax yàlla daf ko indil ay tur ci alquran di ko limal ay yonent di ko limal ay yonent ba aaye bi sori yàlla ne ko ulaika alladina hadallah ñii laa jubal fa bi hudahum iqtadi soo bëggee jub jaaral ci yoonu gaa yi gis nga ulaika allazina hadallah ñii laa jubal ñii la yàlla jubal fa bi hudahum iqtadi soo bëggee jub jaaral ci yoonu gaa yi waaye boo fa bàyyee yoonu gaa yooyu jaar feneen mooy doo jub parce que njub benn yoon gesal ndeysaan bi leen Yusuf waxee lii mu ne mufaajaa mu nekk mbetteel mufaajaatun ajiba mbetteel mu doy waar yulinuha lahum yusuf yusuf di leen ko xabaar tey wa yuzkiruhum mu leen di fàttali fi ijmali ma faaluhu bi yusuf wa axihi ci mbooleem global mu commencé di leen wax lan ngeen def ci yusuf ak frère am ci jamono bi ngeen koy def nag yéen bàyyiwuloon xel seen bopp parce que da ngeen a réer parce que yéen a ngi doon utiliser seen xol jëfandikuwulee woon seen xel ñaari mbir benn bi bu jiitee moroomam loo dugg du baax diggante xol ak xel bis boo reppee ba sa xol jiite sa sa xol jiite sa am nga problème parce que xol du xalaat xol day enregistré lan lay enregistré yow yow déggoo olof ana olof yi xool lan lay enregistré li xel mi di li xel mi di xalaat bëgg-bëgg yi moom la xel mi di génne ko defee xol bi di xalaat di enregistré boo xëyee rek dem defi ko ah gis nga léegi nag boo reppee ba kii enregistré jiite kii xalaat si ba am na moo tax chaque jour mbir mu nekk lan moo ci jiitu mooy xel xoolal bu ñoom bu ñu xalaatoon kii xale bu ndaw la benn ñu nag moom ñoo bokk daanaka ndey ak baay parce que seen ñaari yaay yi ñoo bokk ndey ak baay kon luñ bokk ñaari ñaari ñaari wujj yi aaw bi ak ñaareel bi ñoo bokk ndey ak baay ah gis nga ba pare ñu bokkaat bàyyi maanaam waa ji ñaar ñi mu takk ñoo bokk ndey ak bàyyi dëdë yaay ji gaañu bàyyee ko seen yaay ne ko yaral ma xale yi xoolal loolu ba pare mu nekk seen rak ba pare seen bàyyi bëgg ko ñoom ñoom waroon nañ def ci xale boobu lu bon mais seen xol parce que seytaane moo ñëw ci ñoom ñoom ay ponkal lañ naan leen yéen grand yi xale bu ndaw bi la seen papa gën a bëgg ak moom parce que pourquoi xool leen moom buy dox day jàpp ci loxo bi bu toogee di ko fab di kaf ak moom di réeg moom mais yéen grand yi est-ce que grand papa mën na koo fab xale bu ndaw bi la ñuy tey bu ku mag ak ku ndaw àndoon papa ji jàpp ci loxo yi kan la ñuy fab parce que amul doole mais ku mag koo xam ne mi ngi commencé di sàmmi di liggéey kooku dinañ ko fab sëñ bi mooy seytaane noonu la leen naxee day xew ci kër yi mais ñàkk utiliser xel bu fekkee xale bu ndaw la ak ku mag duñ yem moo tax yi lislaam fenn la wax na nga leen tollale mooy booy joxe booy joxe joxal ñëpp ah waaye wax dëgg yàlla xam nga ne doo fekk ku am ñaar fukki at wala fanweeri at ak ku am fukki at nga jël njàmpe naan da ngay sang borom ñaar fukki at bi pare na da ngay sang ku ndaw gi kan ngay sang ci ñoom ñaar ku ndaw ki léegi nag ku mag ki bu gisee ne man sama papa du ma sang daf maa bañ moom dox na foofu la leen seytaane jaar mbokk yi Yusuf ne leen mbetteel ginnaaw buñ ko amee ñu yëg ndeysaan ne def nañ musiba innahu lam yu aatibhum wala mais bi mu leen waxee ndax fàttali ngeen lu ngeen def ci Yusuf rek daf leen bàyyi kuma moom nekk fa naan Yusuf naan yéen ñu bon ngeen yéen a ma tàqaleeg nii yéen a ma dóor yéen a ma yeew yéen a ma sànni ci teen yéen a ma jaay yéen a ma mënoon na nekk fa di leen wax yooyu waaye wax dëgg yàlla nekkul di leen ko wax daf leen wax rek ndax xam ngeen lu ngeen defoon ci Yusuf ak frère am gars yi ne ko yow la mu ne man la maa Yusuf maa ngi nii taxaw mu bàyyi leen nag léegi ñoom ñoo fa nekk am kersa ñu rus lu commencé di fàttaliku lu bon liñ defoon ñuy xalaat di jégglu ba ci yàgg kenn ci ñoom ci saar bi ba tey yàlla dañu ko nettali aaya 91 ñu ne ko ñoom ñëpp ñu daal di ànd ne ko tallahi laqad aatharaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin isan giñ nañu ci màggaayu yàlla yàlla gënal na la yàlla tànn na la gënal la alayna ci ñun ñi yàlla la tànn ci ñun gënal la lu tax yàlla tànn la ñun ñoo ko def in kunna la xaatiin ndax ñun ay defkat lu bon lañ defkat lu bon yàlla du ko tànn comme ñun ay defkat lu bon lañ yow kuy def lu baax nga moo tax yàlla tànn la gis nga ndeke kuy def lu bon yow yaa indil sa bopp problème même dama ne mbokk yi ñun ñi ci sunu kër yi bu nuy tànn sunu amee sunu benn mission bëgg kuñ ko doxal ci kër gi ku nuy tànn ku bon ah ku ñuy tànn ki gën a jub boo amoon tey loo yónnee ki gën même boo amoon ñeenti soxna ñoom ñeent am ku gën a jub koy tànn ndax boo yónni fen da nga yónnee xulookat bi xeexkat bi oui ma ah waaw moo tax yàlla tamit nag buur bu maandu la ba mu xoolee xale yi fukk ak ñaar kii moo ci gën a jub mu tànn ko ñoom ñoo reconnaître ne yàlla moo la gënal ci ñun mais li tax yàlla gënal la ñun ñi ñoo ko liggéey lu tax wa in kunna xaatiin ndax ñun defkat lu bon lañ kuy def lu bon nag yàlla du la tànn wa isa bi yusuf ndeysaan ci mbetteel comme commencé nañu reconnaître di bëgg a wax mel na ñu jëfur xam nga kuy def lu bon boo demee ba mu feeñ da ngay da ngay mel ne ku ñu dëmm bu bu jëfur da ngay wax rek gaa yi ne nañ dëmm bu jëfur day wax ñi mu lekkoon ñëpp ak jamono jum leen lekk fan la leen lekk bi mu leen di fàdd fan la leen fàdde puisque day mel ne oto bu amul frein day tërëréeri rek ba am lu ko téye yusuf nag ndeysaan loolu lay bañ bi baaj gaa yi bëggee wax rek fa isa bi yusuf yuqaabilu haza al mawqif bisafhi wal afwi ci mbetteel rek ñu bëgg a wax rek Yusuf daal di ndeysaan daal di gàttandu gàttandu kàddu yi ci baal leen ak jéggal leen qaala mu ne leen laa tasriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamar rahimin non bu leen wax bu leen wax ndeysaan xoolal mooy loolu laa muaxazatu lakum kenn du leen ko jàppee kenn du leen yedd tey faqad intahal amru mbir mi jeex na bu fa kenn waxati yooyu bu kenn fàttaliku démb moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne boo buggee jubale ñaar ñu xeex bu kenn wax même bu dee ay jigéen ci kër bu dee ay doom bu dee ay xarit bu dee ay mbokk ñaari nit ñu xuloo nga ñëw ne kii toogal kii toogal nga ni lu ngeen jotee yow sotti nga ci safara si essence dootuñ juboo yow yaa ko tax nag kuy jubale ay nit doo wax lu ngeen jote kan mooy nangu ñu tooñ la nga nga yor fen yi ñëpp a ngi toog mbooloo mi yëpp toog ku nekk day jéem a défendre boppam ci ci loolu nag la lu mboo lu bu dee jigéen la mu xuloog jëkkëram day fàttaliku ba muy sëy si wala ba ko waaji labat yi mu ko doon dikk te defu ci dara foofu lay tàmbalee bu dee waa ji tamit mooy wax mu ne gis nga kii bi ma koy takk li ma ko waxoon lépp xoolal te fekk nañ am nañ juróom fukki at parce que gars yi ñoo leen wax loo da ngay ñëw rek jubale leen waaw ki ci gën a ndaw nga ne ko jógal baalu kii ak su baalu ak bari nga ne yow tamit jógal baalu ak jeex na mbiru seytaane la woon nangam nangam nga wax wax ju rafet wax li yàlla wax ak yonent bi gas leen pax suul leen gis nga Yusuf loolu la def mooy dafa bañ ñu wax parce que bu ñu waxoon rek Yusuf dina xam seen biir plan bi fu ñu ko jëlee kan moo ko tëral su ko defee gis nga bu ñu la waxee ci nit lu bon saa yoo jàkkaarloog moom looy gis lu bon loolu sa xel da ciy dem loolu tax yonent bi saa sallam daan wax saxaaba yi bu ma kenn wax lu mbokkam def ci lu bon maanaam bu kenn dem ci mbell bi gis sa mbokk def lu bon nga ñëw di ma ko nettali man comme fekkewu ma ko bu ma ko kenn wax tey jii bu ñu ma ne woon kenn ci yéen fii toog yor téeréem day def nangam su ne tëll jàkka ji sama xel ci lu muy dem wala ñu ne leen seen oustaz bi di jàngale fii day def nangam ci soirée lay fanaan bu ma nee tëll fii toog gaa yi gaa yi toog li waaye moom kii booy kii di sommaar waaye gis nga seytaane loolu lay def moo tax kon loolu la Yuusuf di bañ pour ñu bañ a wax moo tax mu ne leen mbir mi jeex na bu fi kenn wax yàlla du leen ko jàppee tey jeex na gas leen pax ba mu xóot ngeen suul ndeysaan yaxfir allahu lakum yàlla dina leen jéggal wa huwa moom yàlla arhamu rahimin ndeysaan mbokk yi yusuf dàq na mbir mi génne la mbir mi ci boppam walam utlahu juzur wallahu yatawallakum bil maghfira huwa arhamar rahim moo tax sunu borom subhanahu wa taala li mu waxee mooy dëgg dañu laaj yonent bi lan mooy ngëm mu ne di jéggaleel ci waxtu wi nga mënee fayu yusuf mën na fayu wala mënul fayu ah fayu ndànk wala bu sedd wala bu tàng ah xam nga fayu bi ci gën a garaaw mooy ki ngay fayu ci moom nga ëpp ko doole côté yépp te Yusuf noonu la waxuma la sax ni ñu génne seen dëkk ñëw dëkkam mais moom mooy buur bi mooy président ba pare ñu ngi ci biir palais ñu ngi leen encercler ñu ngi leen wër kooku lan la mën a def foofu ci ñoom waaye nag ci jamono boobu nga amee doole la ñuy wax ngay baale ci jamono boobu nga mënee fayu ci jamono boobu la ñuy xam ne yow gëm nga wala gëmoo parce que yenn saa yi nit baale fekk baale ñàkk pexe waaw baale ñàkk pexe xam nga ku ñu sàcc sa portable bu jar ay deux cent mille wala cent cinquante mille nga xam ne yow perte nga gisatuloo ko nga ne wax baal naa ko est-ce que da ngaa baalaale te mu leer na ni ci waay yenn saa yi nga toog a jàng kii waay su ma ko jàppoon jàng daa baal naa ko xam nga loolu mooy baaloo ko da ngaa ñàkk pexe wala waaw nuróowul nag ñu ne la waa jaa ngi nii nga gis ko mu ngi ci loxoom nga ñëw xool muy moom nga ne ko waa jëlal dama ne loolu bu yombut de wala te loolu loolu mooy lislaam moo tax yàlla wax ci alquran ne idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim wama yulaqaha illa allazina sabaru wama yulaqaha illa zu hazin azim aaya bu jafee dund ngi noonu aaya bi mën nañ ko jàng ñu ñëpp mokkal ko waaye ak a jafee dund lu tax deel fayonte lu rafet te ki ngay fayonteel lu rafet mooy ki lay def lu bon moom na lay def lu bon yow nga koy def lu baax benn boroom xam-xam bu doon jàngale aaya boobu lan la wax ñi mu doon àndal muy al imaamu xasanul banna mu dafa ne moom moo moom moo fondé frères musulmans yi tey jël pouvoir bi Égypte moom moo sampoon peer bi moo tax gis nga nit buy def lu baax na ko def rek ñaata at tey garab googu mu sampoon garab gi sax na màgg na ah garab gi commencé na indi ay fruits lan la doon jàngal xale yi mu doon formé daf leen doon wax ne mel leen ni garab garab boo ko dóoree xeer lu mu lay sànni ah garab boo demee ci garab mango nga dóor ko xeer lu mu lay sànni yow xeer nga ko dóor të moom lu mu lay fay moom da lay jox benn doomam ndeysaan xoolal yaa ngi koy dóor ay xeer moom mu lay sànni ay mango allahu akbar nga dem ci garabu cerise bi dóor ko xeer mu may la doom yu bari nga dem ci garabu banaana bi dóor ko xeer mu may la doom yu bari nee na doomu aadama yi nañu mel ne garab garab boo ko dóoree xeer moom mango la lay sànni wala mu sànni la pomme wala orange moom du jël xeer bi di fayu ndeysaan nit noonu la war a mel waaye xam ngeen loolu lu jafe la ñi ëpp ci ñun mooy boo leen dóoree xeer xeer bi la ñuy jël delloo la ko ndeysaan yàlla na yàlla jubal mbokk yi kon mu'jizatun baahira kéemtaan bu yéeme lan moo tax kéemtaan bu yéeme gi am yàlla moo nu koy nettali ci suratu yusuf aaya 93 borom bi subhanahu wa taala ne bi yusuf laajee ay mbokkam léegi ndeysaan gindeeku na ak ñoom ñu ngay kottante ñu ngay jooy mu jékki-jékki ne leen ana seen pap ana sama pap ay grave de ana sama pap ana waa kër ga ana mbokk yi mu commencé di leen laaj bi mu leen ne ana sama papa ñu ne ko sa papa dafa gumba ci ñàkk bi mu la ñàkk gis dafa jooy ba xuuge ba màgget ba gumba ba di weex gisatul Yusuf dugg ci biir néegam daal di fay génn benn mbubu mu leen jël leen mbubb mi ngeen yóbbu ko bu ngeen demee ngeen sànni ko ci sama kanamu pap loolu lañu yàlla di nettali mu ne leen izhabu bi qamiisi haada fa alquuhu ala wajhihi ala wajhi abi ya'ti basiran wa atuni bi ahlikum ajmain izhabu bi qamisi yóbbu leen sama mbubu mi sama semis bi yóbbu leen ko su ngeen demee bi qamisi haza sama mbub mii yóbbu leen ko fa alquuhu ala wajhi su ngeen demee ngeen sànni ko ci sama kanamu baay ala wajhi abi ci sama kanamu baay sànni leen ko ci kanamam su ngeen ko defee yati basira ay bëtam dana delsiwaat dana gisaat bu loolu amee wa'tuni bi ahlikum ajma'in na ngeen ma indil mbokk yépp na ngeen ma leen indil bu leen fa bàyyi kenn na ngeen buub dëkk ba yépp indil ma kon mbokk yi fii nii ñuy yóbbee mbubu Yuusuf di ko sànni ci kanamu baayam yaqub bi yusuf joxe waa ji mbub mi waa ji war fas nekk ci yoon bi di dem yéegagul ndax dina yegg nan lay yeggee ndax bu sànnee mbub mi yusuf dana gis yaqub dana gis fii la ñuy arrêté dars bi insha allah ba àllarba bi di ñëw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu